laa ilaaha illa la rabbi laa ilaaha illa la bayla yaay rasul ah, bayla yi seyduna muhammad seyna limaamu laay mooy seyduna muhammad ji yaa rasul lu laay borom jamanaaw laay laay lu lay borom jamaana lay lay lay sikar gaay wax leen ko wax leen wax leen alay lay lalaw njim sawo ya rasul lu lay borom jamaana gaay wax leen sikar rek sikar rek jëj alaylalaw njim sawo ya rasulullah borom jamana laylaylalaw te ñëpp wax ay njim sawo ya rasulullah borom jamana te ñëpp wax alaylalaw njim sawo ya so yu lay borom jamanaaw lay lay lay gaay wax leen Limaamu Laay Mahdi alay lay lay Limaamu Laay Mahdi yu xayrul wara Muhammadu lay lay lay lay lay Limaamu mooy Mahdi yu xayrul wara Ahmadu lay lay lay lay lay limaamu lay maadiyu xayrul wara Muhammadu lay lay lay limaamu lay maadiyu xayrul wara Muhammadu yëngu yëngu alaay laay laaw aati moo daaya laay layaal la yonni baay laay laay laay ibu daaya laay aji bo alaay laay lalaw aji bo daaya laay la yàlla yónni baay laay laay laay laay wuy si leen woote ba alaay laay wuy si leen woote ba limaamu lay woote naaw lay lay lay wuy si leen woote ba limaamu lay woote naaw lay lay lay wuy si leen woote ba limaamu lay woote naaw lay lay lay sarxa sarxayaat waaye wax leen sikar rek alaa ilaa ilaa sarxa sarxa yaati xarba xarba yaati laa ilaa ilaa sarxa sarxa yaati xarba xarba yaati alaa ilaa ilaa sarxa sarxa yaati حرب غرب بيعتي لا لا لا لا لا لا يلا لا لا لا لا واي وغلين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا tudd leen yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah

baril na wax laa ilaa laa ba du am yool baar tudde yàlla gën ci mboolem ru nuy taxoo wala zikru laay aaja jooja di tegtal baar limaamul maadiyu naa na ngeen baril zikkar ndax ku gëm la day fonk baatam baat ci zikkar la xol yi dunde moo tax dul zikkar bu yàggee xolam wow mel néew docc daaray ba bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñi ñaan ci mbaaxu yàlla ci màggam ci ndimbalam bis mi ni tàmbali yal nañ ci yàlla defal ndam defal ko xalifatul muslimin defal ko ay rakam defal ko coordonnateur général appel Seyna Issa Lay ak jabootu ahlu bayt Seyna Limaamu dañuy ñaan julliti yàlla yi fi rot si yëpp li nu bëgg dañu organiser ay weer ba toll fii ñu tollu tey ñii ñaan estrade bi ngeen di séen fees na dell commission accueillir président lu ngeen fi mën a andeeti ci ay gan ut leen fu ngeen leen yóbbu fii fees na dëkk bi dafa am fu mu toll am nu mu mel te li fi nekk doyul dinañ jël nag ñun suñuy responsabilité ci ñun ñu organisé may ñaan cam caméraman yëpp fil leen utal place nañu dugg ci biir ñoom ñëpp nag bu kenn jàllati may kenn na ñëpp dugg ci biir mboolem ku fi yor bàjji lillaahi wa rasuli dañu bëgg fii ngeen wàcc ko comme ko fees na ba sëriñ bi egsi na fi ñëpp jóge duñu bàyyi nag ñun ñëpp xamante ñun ñëpp ay mbokk lañu ñun ñëpp a gëm Seydina Limaam mais nag du ñu eh, liggéey ba egsi fii ak ni dëkk bi mel ñuy bàyyi lu yàq kon na ñëpp wàcc ku fi war a wàcc rek na wàcc dem uti fu mu toog ñu bàyyi place bi mu libre dinañ ko waxal ak ñi ko war a waxal léegi ci suuf muy sécurité bi xamante nañ ca bëgg noo toroxal kenn ku am sa badge yi demal nga tax muy accueillir muy ak koo mënti doon li fi nekk ci ay gilet bari na ñëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen génn uti fu ngeen toog yi bàyyi fi mu libre complètement allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf sang bi jërëjëf ñu wax ni am na benn nisaan bu taxaw fi sëriñ bi war a jaar nisaan bu gris AA 457 AP DK nanu dimbali DK 01 nanu dimbali ndax sëriñ bi foofu lay jaar am na beneen oto bu ne ci watam moom it Ford Noir AA 161 d BZ DA 02 gëm gaaw del gaaw am na benn camionnette bu nekk seen wet itam DK 12 33 AH nanu fi jële seen oto yooyu ndax sëriñ bi foofu lay jaar yoneen bu wootee layu xet wa jeex naaw ñi dégg tey tan xam lu seen xol dee naa dégg tey tan xam lu seen xol dee na ay waay gaañi xanaa ñoom xamuñu ni moos weddi mu tëjuru doom yuy daagu mujj di jàmma nga lawaay bul naagu ku sopp borom jàmmalaay neel nii ñu màggal ku yëkki sa loxo yàlla nañ ko yëkki ku weddi alk daa jalaw yaay nga libaas ñang nee na lii may wax nit ji ne ci am na ngeen teew ñang neena ku weddi yàlla ku doon te lawliyaay nga nit ak ci yam na ngeen ci yeew bayil baar mi libaas ñang neena ku weddi alku donte law liyaay nga nit ak dine ci yam na ci yeewu waaye Mamadou Saxiir leena ñu mujj naan ko yaa imaam yaa seydana amoo mborom wa mboromo du sa morom الخوص يا إمامنا تيو يا الإمام الماد يا دي منتظر ودون خال الإمام نيول ممو تجسو بايا سيدنا الإمام لاي سيدنا الإمام لاي kon daal na ñëpp a wax jërëjëf Limaamu Laay yow mii nu xalal ñoo nu lislaam xamal nu la pour bi yeyoo sax bay mooy Muhammadu Rasuulu Laay moo jëkk a feeñ fii di bir na mim yaa ngi baawaan ba soodaan ñuy xëccoo may gi ñoom danoo xamul xawoosu bay ma nay borom diine man seydi alayhi salaatu wassalaam njoloor say xulool ya ay doxandeem ak i juddoom la yamale mu daaw demmale kay fekkale man Seydina Isa Rawaay baayu Abdoulaay ak Waseynu na mu woomal koo defal mu wedal raw laa yi saako sama borom jàmmalaay ne li ñu màggal waay loxo sa kaw maam Seydi yaa doon xalqi mooy ki yar ndeysaan yaay jëwrinam loo kalaat mu jox la yaa xalifa ku sopp baay Chérif Abdoulaye nil nii ñu màggal ko Alaaji Ablaay Caw Laay yaa taawu Seefu Jaliil xeex xeex nga xeex a xeex a xeex xeex nga xeex xeex a xeex ba di am li maamu ji law Ablaay Caw doomi Seydina Isaa Roolaay yaaram bi am nu safay Seydina Baay Abdoulaye Caw Laay yaay ambassadeuru libaas samaam gërëm na la tey tal xalifatu at mamtal muhimmaati sama turandoo baay Ablaay Caw Laay dun la gëm di gëm keneen dun la xool di xool keneen waaw sa waay du ñee waayu keneen am nga yokku leeram yaay xaadimu diine lislaam gaa yu baax yee ka wax wiw tur du tey kii kafeen ton moo di baay ah, maam seydi fi daari kambareen daari rati بدا أجاي مواي جهرا بلا يا راكب أوتوبيس يا راكب كلاندو قف هادي كمبرين داري رولاي أجمل يا سيدنا waaw waaw isa waya ruhal ilah mam seyde bun radiyan axmalana waxo waay kenn du yow mahabbatuna roo walaay mahabbatuna fika irada min allah wallahu arsalaka wa arsala abak libaas ñëw na ba isa mi doon xalifaam dem na lëndëm des budul woon na ma mi xamba taal ba bay Useynu Abdulaay ajaban bi man warisal makka